ah loolu ah mbégte lañ ci am wax dëgg yàlla ñoo lànk ñoo bañ ah, li ñu jël dafa am solo ndaxte tey am nay jamono nguur gi fi ne dañu doon wax ne Sénégal courant dina doy ba mu dem jaay ji waaye tey tiit lañuy am ay njàqare ñoom suñu tëbaatee xëy suba nañu courant boobu noonu da ngeen dañ ko war a yokk tey dafa am lenn loo xam ne dañ koy def. ñeneen courant bi maanaam dafa am euh, benn diversion wala xaajale bu ñu nar a def entre ñi nga xam ne ñoo nekk euh, si village yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk si dëkk bi ndaxte tey ñoo ngi naan euh, ñooñu seen courant nuñ koy utiliser ak ñi nga xam ne ñoo nekk si ville bi nuñ koy utiliser du yoon maanaam am na loo xam ne ñu ngi ko bëgg a def suñu diggante mais dafa amit loo xam ne dañ ko war a wax ndaxte ñoom dañoo toog ne courant bi dañ koy courant bi dañuy jaay ji waaye tey dëgg dëggu ku wax Sénégal wax budget wala koom-koomam wàññeeku na wala it amul doole boo xam ne si ñun lañ ko bëgg a jëlee te itam loolu duñ si nangu du dëgg du yoon leneen li nga xam ne am na solo mooy lan ñoo lànk ñoo bañ li ñuy woote pour ñëpp la. ah dama koy wax naan ku mel ni euh, Guy Marius Sagna lim ñu defa dafa am solo euh, Guy Marius Sagna dafa ba léppo pour xeexal ñu mais tey euh, Guy Marius Sagna ni ñu ko tëjee du dëgg du yoon ndaxte mënuñoo jàpp ne Guy Marius Sagna fa mu nekkoon docteur Babacar Diop ak ci étudiants ñoom ñëpp fa lañu nekkoon ñu seetlu ne dañoo dem ba si kanam ci nga xam ne moo di docteur Babacar Diop ak ñetti étudiants ñu dindi leen ana lan moo tax ñu dindi leen loolu dañu jaaxal ndaxte lan moo tax ñu baleen ndaxte gis nañ ah, ni ñu koy waxee ne force de l'ordre yi wala étudiants yi doole bi ñu am bi étudiants yi yëngalee dañoo bàyyi docteur Babacar Diop. ñu demaat ah, ku mel ni l' avocat de Guy Marius Sagna bi nga xam ne dafa demandé liberté provisoire ñu ba ki nga xam ne moo di Omar ak Fallou Seck ñoom ñi nga bokk dañoo nekk si nitum dëkk ah, si Abdou Karim Xurum Xaq mais question bi ñu posé pourquoi Guy Marius Sagna dañuy jaaxle ndaxte ñoom neuf lañu woon mais suñu bawee ñooñu ñëpp. téye fa ku mel ni Guy Marius Sagna dañuy tiit ndaxte dëgg-dëgg suñuy wax dëkk bi ñu naan la démocratie ah Guy Marius Sagna dañ ko war a ba la moo tax may taxaw foofu ndaxte xaw ma ndax seetlu ngeen ko ji nga force de l'ordre yi le jour où ah, bi nga xam ne Guy Marius Sagna moo ngi dem pale mënoon nañ ko Guy Marius Sagna boobu noonu mënoon nañ koo jàpp mais suñu xel dañuy tiit ndaxte dégg nañ ki nga xam ne moo di Macron moom bi mu ñëwee Niger am na lu mu wax ndaxte Macron moo ngi naan yéen état euh, wala yéen kilifa yi nga xam ne yéen a yor euh, Afrique na ngeen waxal seen i activiste ndaxte certes c'est vrai euh, Guy Marius Sagna France à dégage am na lu bëri lum si liggéey rawatina CFA bi ndaxte tey maanaam mënuñu ni ñu ko waxee ndaxte mën nañ jàpp ne waa France am na lu ñu ci def du yoon du dëgg ndaxte Guy Marius Sagna suñu waxantee dëgg-dëgg mënuñoo jàppandoo neuf personnes ak Guy Marius Sagna ñu ba ñëpp dee fa Guy Marius Sagna leneen li ñu gën a jaaxal mooy ku mel ni Guy Marius tey fañ ko jàpp du woon yoon mu nekk kaso boobu ndaxte ay ñi nga xam ne mbirum terrorisme la ñu leen toppee foofu la guy def tey ta wax dëgg yàlla bu nekkee expression de liberté bu nekkee démocratie bu nekkee dëgg Guy Marius Sagna dafa war a ñibbi këram moo tax tey ñuy woo Sénégal ñëpp en tant que koo xam ne journaliste la dañoo war a taxaw ndaxte ñoo ba ñoo lànk courant bi duñ ko bëggee yokkoo duñ ci ànd mais te dañu naan am maleur à qui prend ses sandales pendant que euh, Rome euh, brûle maanaam tey Sénégal il est temps ñëpp génn li nga xam ne moo di courant boobu ñu wàññi ko ndaxte wax dëgg yàlla ndax waxoon na leen ko newoon na leen ah, ah, en 2020 ça va tàngee ça tàngee commencé na ndaxte tey fi ñu toll ni courant bi yokk nañ ko huile bi yokk nañ ko denrée yokk nañ ko mën nañ wax ne euh, li li gars taxawoon doon xeex suñ fa bayoo Guy Marius Sagna Sénégal fa mu jëm mooy gën a ñaaw moo tax ñuy woowaa Sénégal ñëpp pour ñëpp di génn ku demul doo gor ku demul doo gor waxuñu yokkum courant bi de waaye koo xam ne dafa ba lépp si àdduna pour xeexal askanam muy Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna du yoon ñu ko féetee man courant laay wax courant nag moom Sénégal bu la neexee ñu tëdd fa maanaam ah, li ma lay wax ah, Guy Marius Sagna il ne travaille pas pour les Sénégalais il travaille pour Sénégal bi nga xam ne moom la ñu bokk moo tax nit kooku noonu du yoon ñu ko fa ba

Oh, ku demul doo góor oh, moom mooy kàddu mujj gi ay ah, di la jaajëfal bu baax a baax sant alhamdulilah